ku sangam ay bu santul fecc war ma xaara muriidu fari mu saaraajeen alal xalaaji aaje min saraaji yaa sayidi maamun yow alaaji yow doomi siidi anta may alaaji yow laa di woo saawaaji siyaare ana daaru salaam waaji mooy waaja dem te sawarul xuruuji ñëw màggalal nu sawarul xaraaji bamba yar gaay la roy ñoo naaje ngir fal nag du roog am naajo bamba yar gaay la roy ñoo naaje ngir fal nag du roog am naajo bamba la noon maamuunu fi la suwaaji yow la fi taal ngay takk ka siraaji yow yaa di samsu diine yaa yaalaaji man ngay siyaari si bi kulli haaji sey jikko noppal na borom jumaa ji noppeeg goreela te wëreelu ilaaji sey jikko noppal na borom jumaa ji nappee goree la te waree lu ilaaji seex fal naw waaji say wax du deñ martum ngërëm ngay yaa noppi yaa maandu te yaa saf waaji tegi nga tuur bi neexulaa nappaaje nday mbakke baay mbakke ngi tey alaaji baay ki doomi baay di alaaji ñu ubbi makka lil hujaaji jaamam ba moom madina di balaaji doo njar ci soow mi xam la doy naa waaji réere la doy naw rafle cey saa waaji muhammadul maamuunu sol miraaje satu bi doy naw xalaaraaji muhammadul maamuunu sol miraaji te tur wi doy nanu xalaalaaji mat ngab xalifatu matu balaaji mat xutbu mat xawsu te dool mbaaji njameengu lay siyaare min fi jaaji yal na dajeeg sa booli ceeb yuy taaje mag naa tuubi ruubi yow alaaji gëje siyaare di fajal ma yaa ajo salaalal maamuunu sool mihraaji te turandoo wi tàngale walaaji bismillaahi waahi bil manaani laay tàmbale di marsiyaal gaawaani danay bangaan xaritu Bamba Muhammadul Maamunu dem naa taar ma jooy lewa daru salaam Mbàkke Muhammadul Maamun ndaw ko tekki ma jooyle waa kër Bamba may Maamun a saadix ba tudd Ahmadul Maamun a rangooñi saadix yëpp war naa tuuru waykat yi walif jàngkat yi jooru yaata tiis daaw jéeg sëñ Basiiru sekki baam tuubaam yaata di daaw jeeg sëñ Basiiru sakki borom Tuubaa murid yi waaru daaw la sëñ Falilu may xalifa delooti réer nu Mbàkke ndem dem deefa rendi la Seydi Ahmadul maamoona delooti gàddaay ni meres ndaw coono yu baale soxna Faati ama taf na sunuy xel dongo yaa ngi bis bisi ku deeti tooge daaru gay daaru salaam jub di jubal mbooloo ma ak niru daam gannaaw kamaal ba ahmadul maamuna alayil waanul ali amina ku deeti jox laajkat yi mel ni banque di tuuse daaru ba ceeb ba mbàkke ginnaaw dana ya laaji ba ya laaji lay hi daa muslu yi xam nañu waa ku deeti dafay miliyoŋ hi daa yaa di yot xalifa du ba anda gaaya ginnaaw doona yaa di aji siidi anta doom jadi weer baayam mel ni jant bambaa ko yar xamal ko jox ko mbir ma fóotaat ko labbali ko may ko mbir ma weeru rajab ci taf sa sin dib gaaw ci taggu sa an murid yëpp a sa awo jubli si mbàkke adunaay xaruuru kenn du ko def yitti am ku dul maxruuru xibaar ba daa bette ba far tasaaroo ci seen saa bedd yi mbaa fay gaarul la dal bopp raay ba yegg maatam fu la murid romb nga dégg baatam naar ak wolof muy tukkulóor mbaa soose ñëpp a ba jooy ngir li mu leen daa tuuse déglul maax li ma xam ci saayir ci wàllu baayam mbàkke moo am tiitar baayam a jëkka topp daa am fa am mbàkke eh, eh, jébbulu jox ko ay biram moo tekki moo jëkkaañ màkka ci yoonu bamba ànd sëñ falilu fam na yan ba moo jëkka seex moo jëkka ànd moo jëkka seex moo jëkka ànd moo ëpp lu mu seexal te gis nga loolu moo jëkka war watiir wu taaru i korno di waa yaay baraaya am lu ñu borno wàllu ndeyam di wàllu mbàkke mbàkke muy doomi ndey ci soxna faati mbàkke ndey mbàkke baay mbàkke a ngi tey alaaji baay ki doomi baay di alaaji ndey mbàkke baay mbàkke a ngi tey alaaji la njame wax ci way wa cey sunu waaji ndey mbàkke baay mbàkke a ngi tey alaaji la njame wax ci way wa cey sunu waaji أرسله الإله صلى وسلم عليه الباقي وآله وسبي الباقي أدنى ورنه سامهم سأزن del waraat murid yaa ma desesin del waraat no ren caama wëf sesi waram yi sooy naagu mu daldi dellu si ndee feeñ basiiru feeñ basiiru ndeyem feeñ dootu yaale koy boon faatu ñu dalay jaale bu gore du am te faatu kon faatu ngir ngor nam xel ci li ayaa bi cey mu def cey mu jaar ci mu gétti góor ñi ñëpp moo taalif nay téere tabax nay jàkka sanc na ay njiendi mel ni màkka alim la abid la murid saadex la borom basiira la tembar kaamil la aafis la am na ngërëmal Seex Bamba musula juyoog su nange yonan ba am na ngërëm tembar maam di Mustafa ca booba fum fu ma sa tollu teew na fa ba ker ba mbër may fond mang jumaay ja mu ànd nag moom jooju waay mooy waaja bambaaku tarbiya tawal ko mbooloo saalum pada caar ña booloo mu jalli wey sanji fa tuubaak saalum fumma sey yandu ña fa teew ni maalum def fa kawlax kër yu mel ni tuuba seng fa jàkka far tudde tuuba def fa ay kër lu jiitu moo xam sëñ Basiiru Mbàkke xaw ma maasam mbaagol ba biir Kajoor ba jàll njaambur foo tudde aw turam ñu naa mooy gor ku nekk naa la si abasir nee na ma moo gën a daj jamono kooku waar na ma góor jigéen defal na leen taraanga dalal na seeni xel amul yaraanga tabax na kër yu xejul ci way wii ci réew mi foofu dem ci gal na yoon wi def na xalifa ngir ca nekkuk baayam la jóg ni fiŋ nuy sax di am gaayam Cheikh Bamba féetali ko wàllu saalum jébbal koom di Moustapha ab taawam di Moustapha defeeb xalifa moo doon loxoom fu ma sa ti aw mu teew fa ba magi bas siiw na ci réewum Sénégal ci turam di Moustapha nihma rijaal ba si di falila defeeb xalifa moo féete woon Jurbel moroomam jéefal ku ne taam na sa bil jahri li usni sannihi bi xayri nukri mu taarixal Seex Bamba mu am maharaja leeral na siiratu ba mu am daraja tagg ma ko tadi nasman yu fiit ba di bismillaahi seet ko yow murit ci lay jaabi Bamba am nay seere yomal xiyaam waaju ko sopp maare waa ko noonu def defub Cheikh Bamba nga noonu ngir moo tax yen ba seere sa mooy am na ci góoru Mbàkke ku joxe daaya Cheikh Basiiru Mbàkke ba Bamba nee Jolof sëriñ bu woo naa ko Basiiru loo ko jox ma gis ko amal naa dee yu genn Saalum weesu sëriñ Basiiru jëm ca baayam Cheikh Bamba daldi ni na ngeen ko delloo oh, jox ko ba jooju waay do soolu mooy man te moom fu ngeen ko seeroo oh, gis ngeen ma dong yëpp bokk waaru lu yees fukk ak juróom la am wusoolu sëñ Basiiru Mbàkke maa ko wóolu nekk di aarif Bamba dal koy jiital pexem borom Tuubaa bu leen ko jootal taaram ba semmal na doon yankooba te tamit yàlla nañu faw xa ñooñ dekkal na poroxaan tabax na barba siggal na soxna jaara dekkal taal ba melaw na la yor tawal na jéeri tawal na géej biram yi lépp bi leer ni dom foogu agis mu reera boole tabe ñeme ba mel ni gar la wadde kawam sariyatul mutaara jiit lu oo mbubbum haqiqatul munawara saa yu bay digle daf koy gàttal te lépp jub daaw carax ay gaaral na kaw ga mel la biir ba mel du jortu ca ab jullit lu dul lu baax moo dégtu boroomu jagle la te daawul jaglu wayef la ak toroxlu ak wakiirlu um moo doon mbiram te ku ko tooñ mu jéggal ku dong mu jokk la ko xat mu féexal daawul digal nit ña fa daa siyaare lu ragal yàlla ak jubóo maare xamul ku koy noonu ku ñëw mu fat la la yoo am wàllu ako laaj mu jox la fu ni jaleedi mbar mu raaw xaasaali am tasaaw ba jiit far ya daali itam jaante lu xoomaan min xablu moom lañu ko jox bi daal ak kiilu si ab bambara naan ba jiijal duyal na aw nitam ba ñépp feesal basiiru faati ma du maam si amal naa wan gaa yi dogal ba wey basiiru faati ma du maam si amal naa wan gaa yi dogal ba wey ku mel ni moom dootu fi am baaba daa moo doon mbër ma mbër ma doon na ma daa xel man bilaa taalumin la bamba waxan sëriñ bi xiyela jaaji ak bàmba maa tuuti ci biram nga waaru ak meloom ndagam gisu mu taaru fu ma sa tooge ñaari jublu xeb tey mi mel ni weer ko am la am mag ak ndaw jigéen ku ñëw mu yaatal fajal ko ay yitteem ku weddi laajal durus kitaabu laay lay fanaane waxtaane sange mbàkke lay waxtaane ma jooy koor sëñ Basiira moo ko la deeti gunge aga teeru di jàngloo xasaay daam tey déglu njàng ma tey ñaaxaate moo selanglu ma jooy leleeru koor sëñ Basiiru moo ko la deeti gunge yaa ka waaru ay yooni ma jooy le alxuraan sëñ Basiiru moo ko la deeti jàng yaa ka waaru ay yoon si genn guddi màggal te mépp mbir soo gëmul yow laajal ma jooy taalifi Sëriñ Tuubaa na doomam ja doon ba asiinan wa baana jagle yaa am ca diggam ak baayam ba mënee su ko waaye jël na yan ba bambaa ko jox daarul menan bil marwi xamal ko boo tax mu leeral yu am yi foofee la bambay waaje war ci gaaram ilal jinaani ab xibaar la moo xam ab li safinatan bikun lil janna min daaratil min an yaasal min na sëñ Tuubaa ne yàlla may ma gaal gu yëpp dongo yi ba mel ne xaru pet waaye na dexee daaru min an sëñ Basiir nekk ci bopp ba mu jëm àjjana ab li safinatan bikun lil janna min daaratil min an yaasal min na ab li safinatan bikun lil janna nani yaa saani naas bireen falamani su waxtaane wala su ko biral la daa lawtaane seen mbir dëppoona seeni at yamoona ñoo bokk ay bir at yay niroona cowam sasin la Bàmba génn Jurbel cowam sasin la Seex Basiiru gental at mu ca nekk nee ñu guddi la tàmbalee laajal ña fekke faat na ma ci yow ma lu su lëmbar ma làqu Muhammad ca guddi booba bis la làqu wowum ru'oo bi ayaati bil minan fil baxli al maxbari daari fil minan lii dafa am ci at yëral taarix ba ay sumar la ni ki Seexi Bamba li mu atam ya la xalifa digle këram ya jàngal ko am na jagle kër gu ca nekk nañ ko jàng lim la wax keroog am na ku seet baatin ba mboolem li ub yananti ka farahu lii la ca mbër mëlëm ataa naal farahu bisuk sarasta daa yi rey ndakaaru ak Kawlax ak réew yi yëpp bu aloo daa aru di dox nga taali li xadimu taas yaa faal di jooru danga naa haa waa daa yi njur bel ya ñëpp a booloo diw booy buuli keroog ndaw mbooro kuy jàng ga diggante Tuuba ak Njaaréem teew na fa ànd daam di jolli riim jàng katam ba tudd xaali jooru di war faraw la tomba na asiiru mat kan di jooru ñuy wasal ay kaamil ginnaaw lañu fa seng daari kaamil doom jaa ku a jigle yal na wutu baayam lu yàgg moog rakkam yi kii doy naayam doom jaa ko digle yal na wuutu baayam li yàgg mu rakam yi fii doy naayam rey nañ ci lu romb téeméer lu ma juróom ñett fukk ak yu leer ñee yakkaay booli di yóbbu ñeey sóor xéewal ga kër gu def na fab jóor gannaaw di wàcce ay musaf ndaw xar baax di saraxal te loolu fekkulan baax réew yëpp ñëw di jal sangi mbàkke sunu waaja neel ka saagu buuru Mbàkke te taxawlu li nga lim yow doy na ko ak munta jeexal géej te lii kii moo di kooka kooka raw na am xel kenn munta xayma ay biram yow jullil ci ngeen ji yonnen salawaatu rabbi alayhi masaabi bilis bi te yàlla may nu daraja yi yaddaali ci buuti way wi mbaa nu raw xaasaali la wara jaam di saloo sant mbër ma ku sangam may bu santul fecc war ma xaala muriidu faxi musaaraaje naylal xalaaji aaje min saraaji yaa sayidi maamun yow alaaji yow doomi siidi anta may alaaji yow laa di woo wuyu ma yow saa waaji naa Daaru Salaam waaji mooy waaja dem te sawarul xuruuji ñëw màggalal nu sawarul xaraaji Bamba la yar gaa yi la roy ñu fal rew nag du ni am naajo ba maa la yar gaa yi la roy ñoo naaje ngir fa la réew nag du niroog am naajo ba maa la noon maamuunu fi la suwaaji yow la fi taal ngay takk ka siraaji yow yaa di samsu diine yaa yi alaaji man ngay siyaari si bi kulli haaji sey ji kon appal na borom jumaa ji noppi ak te wëreelu ilaaji say jikko noppal na borom jumaa ji noppi te wëreelu ilaaji seefal nawloona la fi las waa wax du deñ martum ngërëm ngay yaa noppi yaa maandu te yaa saf waa ji teggi nga tuur bi neexulaa na paaje nday mbàkke baay Mbàkke ngi tey alaaji baay ki doomi baay di alaaji ñu ubbi yoonu Makka lil hujaaji jaamam ba moom Madina di alaaji doo njar ci soow mi la doy na waaji réere la doy na rafle cey saa waaji Muhammad al Maamun fal miraaje satu bi doy nanu faraaji muhammadul maamun sol mihraaji te tur wi doy nanu xalaalaaji mat ngab xalifatu matu balaaji mat xutbu mat xawsu te doo lembaaji njameengu lay siyaare min fi jaaji yal na dajeeg sa booli ceeb yuy taaje mag naa la tuubi ruubi yow alaaji gëjë siyaare di fajal ma yaa ajoor salaalal maamuunu sool mihraaji sa turandoo we tàngale walaaji bismillaahi waahi bil manaani laay tàmbale di marsiyaal gaawaani danay bangaan xaritu Bamba Muhammadul maamuunu dem naa taar ma jooy lewa daru salaam Mbàkke moom adul ma amoon ndaw ko tekki ma jooy lewa kër Bamba may maamoon a saadix ba tudd ahmadul maamoon a rangooñi saadix yëpp war naa tuuru waykat yi walif jàngkat yi jooru yaata tiis daaw jéeg sëñ Basiiru fekki baam tuubaam yaa taddi is daaw jeeg basiiru fekki baam tuubaam murid yi waaru daaw la sëñ falilu may xalifa delooti réer